Macky Sall nee na bàyyi leen ba tabaski ji weesu ma wax ak yéen sénégalais yi wax leen nag la ma nar ci troisième mandat bi tribune yéene kaay naan leen bu leen fa yegg ak moom kaay ma tojal leen kaas yi xamal leen la président Macky Sall nag fas yéene ak ñun ci réew mi moom président Macky Sall ma ne la bu leen xaar lenn lu dul mu wax ne candidat lay doon ci élection présidentielle yi ñu jëm ndax nag lépp loo xam ne teg na ko ci réew mi moom Sall ngaari ngay bax di xeeñ coow la mooy lan la kor Marème Faye Sall di rëgal las yéen kaay nan kon bàyyi nañu coow li moom président Macky Sall daal di aju ji nag ba màkkatal mu karam Dakar Times naan président Macky Sall ngay doxal de moom président Macky Sall gise nag Nicolas Sarkozy yàggul ca Paris defal na Amadou Ba ay link président Macky Sall wax nag Emmanuel Macron ñu ne dieta waay Sall nga dem màkk ëllëg lay ñibbisi l'info yéene kaay naan ma ne la président Macky Sall candidature am bii dafa mel ni nag njëkk yeewu ko yor ndékki loo xiif xiif tëddaat rek ba mu yeewu Sall nee na danaa wax ak yéen xaar leen ba tabaski ji noppi ngeen jëfandikoo seen ndawal seen xel dal ma ca roog yéen bugaan ci tribune yéen a kaay naan kon looy wax président Macky Sall na doon jàmm lee fa yéen a kaay naan président Macky Sall daal nee na seen xel na dal gannaaw tabaski ji ma ne la danaa wax ak sénégalais yi la may wax nag du kenn moo ma koy digal wala kenn moo naan man defal nii wala jaaral fii man daal Sall maay xool la sama xel may ma ma daal di koy jëfee ak yéen ci mi te naan dialogue bi daal ay patriote dëgg-dëgg ñoo ci daal di boo ko xam ne intérêt Sénégal moo leen gënal yëpp tribune yéen Bougane Gueye Dany xam leen ni Sall daal fit gi mu am ci sénégalais yii France dëgg-dëgg moo ko may moom président Macky Sall nag du moom ak màggitu complice yi nga xam ne ñoom la àndal ñooy génnee sénégalais ci guute yi nga xam ne nekk nañ ci dialogue bi dil la dil goo xam ne lañ ca soobu du lenn lu dul daal di xaalal président Macky Sall ñetteelu candidature am bi nga xam ne lewul baaxul ànd ci ak société civile boo xam ne ay politiciens lañu ñu fàtte nag milliards yi nga xam ne sàcc nañ ko ci sénégalais yi te ay jege ñaale président Macky Sall ko ci réew mi yi toll moom Bougane Gueye Dany day ma ngay ak président Macky Sall ci critique yéen kaay moom Bougane di fa xamle ni naka lañ mën a waxee ci ëllëgug Sénégal te waxuñu génn ak daan goo xam ni fas nañ ko yéene teg ji ñi sàccaalalu askan wi naan leen lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci recommandation defal naa ko gouvernement gi jébbal naa leen ko président naan bu tabaski passé naa leen wax la ma bëgg ca mandat ba Bougane naan kon xanaa ndéwénal la te naan lu ngeen ci manti déggit Sall moom mi nay leer Bougane a ngay song président Macky Ndiaye ma ngi fay xamle ni waa Bennoo seen yorin baaxul la war sénégalais yi fi mu ne mooy résistance Bougane Gueye Dany ci yoor yoor naan sénégalais yi dey fi mu ne ngembu nañ ba dëgër fas yéene nag janoo waaye tam xeex ak seen i nerwi yi moom Gueye ma nga naan sama focus benn la mooy président Macky Sall 24 heures yéen a kaay naan maan jiital gëm sa bopp nga dal ci kaw président Macky Sall l'évidence yéen a kaay naan kon dalil ca kaw seen dialogue ba Walf Quotidien naan maan rax ci doole di tuumaal France ci ñaawte nga xam ni moo am ci réew mi lii Quotidien naan maan nee na lépp loo xam ni am na ci réew mi loxol France dugg ci ci waa grand place mu fay xam le ni président Macky Sall taskatu yaakaar la ndax nag fi mu ne góorgóorlu nga xam ne dépense boo xam ni xëy na ko jox njabootam suturaa leen moo ëlëm bopp bi location ñëw ne ko déetawaay ak fi réew mi toll gars yi buum te leen waxuma laa xaru tabaski bugaan naan ma naan sénégalais yi téye leen rek te ngeen muñ te xam ne lu ngeen muñ mu jeex ndax président Macky Sall nag tabaskeem bu mujj ak ñun ren jii la ci l'exclusive yéene kaay mu ñuy xamal ne nañu résister mu seen jafe-jafe moom moo di buumu xar président Macky Sall nag dialogue dialogue la tal l'indépendant yéene kaay naan man la nga xam ne jël nañ ko ji dogal ci dialogue ba Bougane Gueye Dany day ma ngi koy fubal nan ko alee le regard yéene kaay naan konte xotti lépp loo xam ne jëloon nañ ko ni ki recommandation le soleil yéene naan ko déet lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci recommandation def nañ ko ci réew mi te lépp nag ci wàllu dialogue national bi la daal di anto l'enquête quotidien naan kon li am solo ci dialogue bi mooy lépp loo xam ne xale yi mer nañ ko réew mi mer ko askan wi mer ko ba mu jëral leen génn ci mbedd yi ci Sénégal sedewu ca fa mu taxaw la taxaw amul génn ak goo xam ne am na ko ca la ca des nag moom moo di assemblée nationale ci boppam moo war a matale la ba tënk dialogue ba Walf Quotidien naan kon moom président Macky Sall la soxal ñaari kaay yi di Karim ak Khalifa jébbal na ko député yi naan leen la leen soob ak la leen saf ci ñaar ñiy def leen El Malick Ndiaye ci l'Indépendant yéen kaay naan kon waaye daal la nga bëgg ci Ousmane Sonko mu saf la te moom am ci réew mi amuñu plan A amuñu plan B ñun waa Pastef Ousmane Sonko mooy sunu Témoin yéen i kaay mel ni kuy ñaawal waa opposition naan leen président Macky def nab dialogue am am nay conclusion te daañu ko doxalee ci réew mi waaye yéen seenub dialogue dafa yàqu échec la El Malick mel ni ku naan kon sunu ŋaññi ci dialogue ñun la ñu ñor fi mu ne moom moo di Ousmane Sonko sunub candidat muy neex président Macky Sall ak mu koy naqari moom moo ca yem moom Ousmane Sonko day mooy candidat bu Pastef tribune yéen a kaay naan man téeméer ak fanweer ak juróom ñett ci taskatu xibaar ña nga naan président Macky Sall doo présenté waat ci réew mi troisième mandat bi dañ koy bañ te mën naa taal andi fitna ci réew mi moom président Macky Sall ci libération yéen kaay naan leen la fi amoon soin kay mooy mbiru terrorisme te lii mooy li naroon taal réew mi te dootu fi amat libération yéen kaay naan kon ku sangul réew mi jot na benn auxiliaire bu police moo jëloon ñaar ci jarbaatam yu jigéen di leen sàkku sàkku goo xam ni yéeme na ca kër Mbay Faal yéen kaay bi naan maan xale yaa ngi am diggante fukkeet ak fukkeet ak ñett moom soxna si si boppam moo ko kalaamee soxna si nee na ba ma si njëkkee teg sama bët sama borom kër laa gis mu daal di yëkkati sipp benn xale bu jigéen bi jël